asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatu habuna yarzuqni an kulli tawabbiya warzuqni kuni anadi ajina ajilan bi bismi muhammadin hatta kum dini hakana bisir juwani tuba wa hmini wa kini adil wala وتبني اسمك من اسمك كالسماء والأدي بشأنك يرد شمال أجيب سيدنا حسن دي محمد تلقى الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على سيدنا محمد آمين سلام عليكم تعالوا ñu ngi siyaare ñëpp di di siyaare waat ñëpp rek suñu Abdourahmane Daaru Muhti qaddasallahu sirrahu wa awrasana sirrahu am daan xadim xam naa Moodu ci day am kuy kuy laaj la laaj yu am solo xam naa daal tasaar tur yàlla lay laaj xam naa rawatina jalaaw xam naa mën naa am tomb yu yu laaj yu togg la mën naa am mën naa am bu ma ci wax ma nag benn la man yàlla mën naa teewal yàlla ko teewal te te te defal ñu ñu njëriñ ci wax ak ñu koy wax ak digg yi lépp defal ñu si njëriñ defal ñu si leer dóor ko ci xol ci ci xol yi mos ñu ci lë lëndëm yi sumaat yi xam naa xam naa jëlaal la jëlaal ndax tur wi loolu la muy firi lan lañ bu mu jógee nagam nagam bu dee ci ci lasaar moom bu mu jógee danañ koy wax boo demee ci man boobu usul hikma ñu ngi koy leeral di ko yóbbu ci allah dañ koy génne ñoom di ko yóbbu ci yunaan ya ñi ñi ñi di ko génne ci basmala bare bare fatiha lañ koy waxee waaw ñii di ko génne ci allahu muhammad moom ahum saqun allahu muhammad am am na li ñu wax ci yoon ci génne loolu loolu mooy yoonu lasaar bi lay wax xam ne bu dee ahum saqun jooju ci lasaar moom mooy ànd ak doomu yooyu ñu wax nga xam ne mu laajat ci biir laaj bu am solo mooy tur yàlla ñaan teexul wilaaya la teexul nangam nga gis ci ca mujj di ko ñaan nga ñuy wax ñu lay wooloo ay ay rawaan ñu lay wooloo sax ay jinni day am ay jinni nga dégg sax misaal ñu naan yaa sum xorosi nangam yoon wala ñu naan muy mun nangam te te muy mun moom rek danger lool ndax muy mun wax nañ ne moom mooy bëkk néeg juróom-ñeenti doom yu jigéen iblis laanahullahu wa najjana min sharri boo ko boo ko weddee nangam boo feeñoo la doomu doomu jigéen ñi day indi ñu tànn ci ku la neex sëy moom loo bëgg am ko muy muy mun xam ne ñu arab te duñu arab waaw nga xam ne am na mbokk moo ko laaj ma ne ko Lassar ni mu lëkkaloo ko ak njabar nga xam ne yéen a ci moom da ngay dem teg nga naan yaa sumxurus sumxurus ab dem la mi ngi mel ne ci nga togg bu mu guddi naan yaa bëri naan ma gisal la rek ma gisal nu mu di déggee te yàlla gën la gën laa jege foofu waaw nga nga ba ko fi di di di woo kuñ bind kooku moom dafa xaram dëgg dëgg dëgg dëgg moom amul sax naatable moom. maanaam bu xaraa bu doon sax dafa xeliwul xeliwul noonu am xel xel mu baax nagu ko kon kon nga xamante ne bu dee ci lasaar kon moom lépp lu ñu la wax naa la daa gis autour ñaari lii dey turu yoonu yoonu bu baax wi la ak yoonu wu lëndëm wi lépp yam benn la kon ci rawaxan yooyu ñuy wax si xaj na yooyu dañ koy génne ko ko mu la sarloom leer na ñu koy def ñoom xam ne xam ne lu ñuy def waaw nga xam ne ay ay ay jinne la ñu lëkkalool ay jinne basaar jinne lay lëkkalool jinne ji mooy jóg dem ci kii fàddal la ko mooy dem nangam indi la nangam mooy dem tasxiir la nangam jinne rek la moom ñi koy def ñëpp xam nañ ko nag ñi koy def ñëpp xam nañ ne la saar moom woo yàlla waaye ji jinne ngay woo loolu moom leer na ci ñi ko ñi koy def te dëggal laa wax bu dee nag jalaal ci tur yàlla man day Cheikh Mouhamadul Mourtala ibnu Cheikh na Xadim i akbaru wallaahi baa Xadim moo ma ko joxoon bi xattee di nga xam ne sama référence sama marjaan sama delluwaay ci jëlaal mooy ne Cheikh Mouhamadul Mourtala moo ko bind jox ma ak ak la muy àndal waaye andi ko doom de la muy àndal mu jox ma ko ne moo bul ko wuti àdduna loolu kon léeg-léeg lañ ciy dégg ko kon mooy kon moom may mosu ko wuti wuti àdduna waaye àllaaxira la la la la gëne premier décembre mille neuf cent quatre-vingt-quinze la ma ko joxoon moom ma ko jox ñëpp la génne su su soo jëtale ñu boobu ma ngoon ci tay ko waaye ñëpp la ne nañ ñu may ko ndax dafa am lu wax kon loolu kon yittal na kon loolu kon man sama marjaan ca loola yaakaar naa bu ko Cheikh Mamadou Moussa jox jox doon man mën naa ko ba mu bañ a jëfandikoo ndax man damay bëgg di te taxaqiqa ka taxaquq di wér lu mbir ba mu leer ci man nañ ndax alaxira alaxira moom da damaa xam ne daa wér ci ngi ci man alaxira moo gën a wér ci man adduna ndax adduna moom ma ngay dem ngay dem dëddu na noo ko Cheikh Sall waxoon te àllaaxira moom dafa jublu dë dëdduut moom mel na ne mel na ne yow da ngay dox jëm ci moom muy dox jëm ci yow dox jëm ci yow kon moom lu lu wér ci ngelaw moom maanaam Cheikh Modou Moutala moom jox ma ko. am na tàngoor moom am na tàngoor tàngoor boo xam ne du tàngooru yow yow yow ci sa bopp yaa koy yëg mu tàng jër tàng jër ci yow nga nga mel ne da ngay baax waaye waaye waaye du tàngooru bitti bi mel na ne ndax man ba ma dalee dem naa hôpital hôpital militaire yi boobu kalon fekk moom moom la ñu ci hôpital ko ko ko ko wax ci militaire yi ñu ñu ñu leen yaram bi dafa tàng ñu xool ko ne ne normal la ma gis ne normalul ma sama xel daal dem dem ci ne ko kon de kon jalaal bi bi jëfandikoo la kon ba loolu amee ma gént ñu wax ma ne ma ne ma nangam nangam xob sangam de boo ko dee xooj ko naan dana féexal tàngoor tur yàlla ma ne ah man loolu dama adawoo ak saa borom cofeel cofeel gi ma ko sopp te ma xam ne damaa sopp dëgg-dëgg loolu yàlla so xam na xam naa ne sopp na ma moo tax bu ma waxee loo xam ne damaa gis ne dafa gudd ci man daal dama dama dama ko am nga leen lu gën a yomb gën a jàppale defuma kii ko loola yàlla mais bis ginnaaw ginnaaw subaar rek mu tëdd noonu ginnaaw subaar yàlla mais wax ay baat ne ma wax ko ma dig toog ci lal bi wax ko bu daal ni giriif automatiquement la def tàddañ ba tey jii loola benn ci benn tàngoor woowu noonu laa ko xamee expérience bi ma ci am nag la day nit la rek ku koy diglu mën caa jëriñu mën naa am ginnaaw ba am naa yitte ju yitte joo xam ne lottu naa ca boobu lool jaaxle ca lool nga xam ne yitte la joo xam ne jaaxal naa ca lool te te xaw ma ci xaw ma ci kaw suuf sama moroom jaam mu ma ko mën a diis balaa di di koy def ci yu nga defee ci ci ci guddi gi moom ko sama sama xaw ma joxe woon daal ci nag dagan bur bi nag. ma tëddee maa ngi sagoo am am bàjj jékki-jékki am am lu ma réesu sama yaram wi na say ma di ma dindi mbalaat mi gis gaynde kuy ba ngéer ci néeg bi ma daal di xool gis ko muy gaynde yaram wi dafa nooy ba mel na mbàjjum leen yu mag yooyu ma daal di ma xool ko daal di sanguwaat xam ne kon kon kon xam naa ko ci kon loolu ñuy wax rawxaan bi rawxaan nag mooy leeru turu rawxaan du jinne jooju nagam bokkut ni ko la saar yi waxee fii moom beneen la leneen la de rawxaan fii moom mooy secret ruuxu tur sàngam rooga na muy pata masala laha basharan na muy jëmmoo loolu la ñuy tuddee rawxaan bu dee ci bu dee bu dee ci suufanke gi lu lu ne am na rawxaan rawxaan loola la mooy secret bi loola waaw ne ñoom buñ buñ dee jëflante ak loola rawxaan ba la ñuy daal di dàkk bu bu bu bokkut ak loo loola ñu wax ci ci ci la saar nag wute na wute na te fekk na mos naa ko jëfandikoo keer ci bokk moo xam ne dañ koo yónni woon ay bagages yu ñu jëlee ca poste ba ndekete drogue la te moom xamu ko fekk na booba gars yi topp nañ ko bay xaar ki bay xaar ki koy jël si keer ñoom seen seen seen atte ba ñoom dañuy wax ne doo doo drogue kuñ kuñ kuñ kuñ koy jiiñ dañ koy jàpp ci loxoom waaw loxoom ko jàpp ci loxoom nag wane moom moom ñoom dubite mu talab bi seen bi bil jarima ñu def loolu nag yàlla koy jàpp mu wax ma ko keroog ba ba ñu ba ñu su suba lañ koy atte mu yónnee ma kayit ñu ko doon yóbbul añ kayit ne ma ko suba lañ koy atte te foofu keer moom rey la bu dee góor moom rey la bu dee jigéen xaw ma fukki at ak ñaar la doon xaw ma moom rey la moom yor naa ci ci ci surno yi ba tey ñoo ne jàpp nañ di sangam ci kii war a ci rey nañ ko ba daal di toog dinaa leen timis yaakaar naa ba daal di def fardu yi bi ma ko defee bi ma ko bi ma ko ko defee daal di bëgg daal di xam ne ne kon yëf yi sotti na ba mu xëyee kenn attiwu ko dañ ko dal di génne xam ne loolu moom karama tiggi la ca ci mbirum mel noonu ci Égypte mosuñ ko dégg fenn moom ci Égypte ku ñu atte ku ku ñu jàpp lo- ci loxoom drogue ba noppi ba ko waaw noonu la kiimaan la kon moom loolu kon taxamul sax ku na xanaa ko yësuñ ci ci ci laa ko defee te muy nga xam ne nga xam ne ci silsila Cheikh Mouhamadou Mourtada loolu daal xam naa ko ko kon moom xaw ma yeneen tomb yu bu dee xaw ma mën naa am fàtte naa ko waaye daal kon secret de saar bu ñu jox nga nga gis ci nga gis ci turu turu nit turu turu ma turu turu ginne wala yooyu yooyu moom moom sànni ko mu ci gën am na mbokk mu mas a jox dara aw tur ñooma nag ñu ngi jóge ci suñ diw sangam suñu sangam yaa si mu xëru sin am ci junni yoon defuma ko ba moom ab diir ma ne ko ma kat ma defuma ko ndax bu dee suñ boobu nga xam ne ci ci la jógee moom mën naa am kooko day jàppe sama xoro sin as ngóor rek nee na nga naan ngóor si kaay ma yónni ba barab sàngam pas-pas boobu mën na ko ca am bu dee man nag man suñu ma ko suñu may wax naan yaay sama xoro si nangam waaw waaw waaw kooku kooku kooku moom suñ bu doon sama xoro sin dama ko seen seen kon moom mën naa koy woo yaay sama xoro sin te xanaa koy koy du bu baax xanaa du jar wax ko génn yoon waaw waaw nga xam ne kon la saar moom moom moom lu mat a moytu la lu mat a mat a moytu xam naa ci xam naa ci pexe seytaan yoo xam ne bi seytaan yi nax nit ñi xam naa ci loo xam ne ma daara mën naa moytu lool gaa yu bari ñu ngi ci jëfandikoo yoo xam ne moom ak kéefar dong la ci ci ci leen di joo ak kéefar kéefar kéefar waaw am na am na ci ñoo ñoo ci wax ci seen wujur yi doon jëfandikoo yoo xam ne moom kéefar képp la kéefar képp la waaw xaw ma seen mbir ëllëg nu muy doxee waaw adduna daal xam naa moom ku ko mënoon a dëdd nag dëdd ko ngir yàlla doy loo loo ci mën a jëfandikoo rek loo loola mën a muur si sa sa sa awraag loola mën a yéer ba taw beeg ndox mi xaw ma taw beeg naaj bi du la laal dàll yooyu sol ak ma xam ne wala kaala yooyu daal looy mën a jëfandikoo ba mën a taxawee li la fi indi muy jaamu yàlla gi te mooy yàlla farataal ci ci doomu aadama yeeg jinne yi way gëm yi nga daje ko ko mën daal xam naa xam naa ne moom la sax daal moom lu wóor a di la am na nag ci co baax mën naa am luy faj dara luy faj luy metteeg luy faj nangam luy faj nangam yooyu moom yooyu moom bu ci sirku bi lay nekkul wala lañ koy booleel du sobe kooku moom kon baax na kon yaakaar naa kon jumbut tombe im dexantere woon yii bi daa bari waaye mel ne ci ci tënk kon mel mel ne tot na woon jëral daal moom Cheikh Mouhamadou Mourtada boo ko bindee jox ma wax ma jëral ma ci wax bu subu pencee bu ma sama borom laajee ne ma jëral lu tax nga doon ko jëfandikoo ma ne ko Cheikh Mouhamadou Mourtada mi mi dem ko joxoon loola kon man marjaan la te te nag adduna bi adduna diine ji ñu ñu ñu jëfandikoo boo ci doxut ba gis secret ya la nga mën a doon da doyloo rek mooy saxaaba yi ñoo ñu ko andil ne bi am nangam ne yàlla nee na loolu rek la ko waaye nag kon na nga am na cis lay ndër lay lu wër cëng man de ba ma ko jëfandikoo léegi gis naa ci yu bare bare bare bare njëriñ yoo xam ne kimtaan la moom bare bare bare waaye nag doxuma ko ci la sarde ay at ak man a doomam yooyu ñu kii woon xaatuma ko defuma ko man a sarde yàlla dama dama sama xel ko nanguwut donte ne bagages yi ñu ngi ko jox yor naa ci yor naa ci yu bari waaye nag li may xam ne moom lay jë- jë- jëfandikoo man caa def dara ci saasa ci dul coona buñ toll rek xal xalwu yi ñu wax ci jël saar mu gudd lool lool de- de- am naa bëgg bëgg bëgg ko xalwoon bëgg bëgg def ay bagages yu bari rek doo xam sax doola saar waaye ay dog yu bari ma bëgg bëgg ko boole daal may wax ci jalaal lu yomb lool lu yomb lool nga xam ne moom moom ci xalwa bi dama koy def sax fa war ci waxtu yëpp waxtu waxtu julli wu- ci moo julli daal di def dog ko muy lu yomb moo noppee noppaloo yi yi xasida yaag alxuraan ji mu jeex nopp noppaloo dara daal di gàttal xamutam ba xam xasida la yaa ñu jàng alxuraan waaye ñu war ma ci secret yoo xam ne kimtaan la kimtaan la kimtaan la waaw moom secret yoo xam ne lu leer nañ te amu ci benn coono loolu moom mooy tur yàlla loolu saar nag mooy yu gudd yooyu ñaa ne Cheikh bu bakk ilmaan waxoon na ne lii fa soxla ci tur yàlla du gudd sama temps